Mamadou Bocar Niane ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi lay di fay di nuyu say auditeur ngay conseiller technique directeur général élection yi ñuy waajal élection territoriale muy gox-goxaan yi tey ji ñu bëggoon a xam fu ngeen toll ci wàllum organisation bi. waaw wàllum organisation bi de ñu ngi sant yàlla bu baax. parce que fi mu fi ñu toll nii tey Euh, des na ñetti fan wala waaw des na alxames aljuma samedi donc ñetti fan avant jour bi te matériel bi ñu waroon a yóbbu yëpp yóbbu nañ ko waaw euh, am na ci sax bu nga xamante ne bi yóbbu woon nañ ko bu yàgg mhm. deux mois mooy matériel bu tiis bi yóbbu nañ ko li desoon mooy bulletin yi te bulletin yi mënuñu ko woon a teel a yóbbu parce yi bala ñu ko commencé def impression bi maanaam yóbbu ko ci imprimerie bi ñu defar ko il fallait ñu am ak yi te candidat yi xam nga après la la seen liste génn mhm. bi liste sax am na yu nga xamante ni dañ leen a attaqué woon mu am recours mhm. donc il fallait que ñu xaar ba recours yooyu génn ba pare pour ñu defal ñi nga xamante ni dañ leen a attaqué woon donc retard boobu moo xawoon a répercuté sax mais sax du considéré parce que pare na bu yàgg ba ñu ngi commencé par les région les plus a ay Kédougou yooyu mhm. bon semaine bi yi la ñu yóbbu Dakar depuis presque une semaine ngi yóbbu Dakar mhm. parce que on préféré euh, dañu dañu tàmm woon commencé ci ñu gën a sori mhm. waaw donc daal su yàlla andee suñ li nga xamante ne jël nañ ko yëpp te waroon ko def pour que bu euh, euh, dimanche jotee ñu mën a commencé bureau yu ubbi teel a ubbi heure bi ñu ubbi parce que huit heures la ñu war ubbi. Mm-hmm. Euh, mu demee noonu ñu koy ñu ko ñu koy yoon waxee. kon daal bu ma la déggee euh, li jëm ci wàllum administration bi logistique bi ak sécurité bi lépp pare ngeen ci ci bo bépp boor. waaw ouais, effectivement logistique bi ak sécurité bi. Mm. parce que euh, euh, justement sécurité bi bu desee ñaari fan. ah euh, dafa am ay agent euh, yu nga xamante ne ñoom la ñuy yóbbu ci lieu de vote yi mm-hmm. maanaam fi ñuy wotee mm-hmm. ñoom ñoo fay ñoom ñooy ñoom ñooy jot matériel bi mm-hmm. garder ko garder ko ñaari fan waaw pour que jour boobu suba teel avant huit heures di jot président bureau de vote yi ñëw mu jébbal ko moom tamit mu jëbal ko euh, homme de sécurité boobu policier wala gendarme wala keneen militaire mu jël mu jël matériel boobu delloo ko jox ko euh, président bi kooku ko ko dem dugal ko ci bureau waaw yooyu yëpp euh, tàggat dañ leen ci muy takk der yi ak euh, membre de bureau de bord yi ñoom ñëpp formé nañ leen tàggat nañ leen ci affaire bi naka naka la war a demee donc bu ci yàlla andee mën nañoo am benn euh, nombre ci dispositif bi nga xam ne fas yéene ngeen koo teg atum ren. waaw xam nga takk takk der yi takk yi ñoom mi ngi dépendre ci lieu de vote yi parce que lieu de vote bu nekk dina am benn équipe takk der. Mhm. bu nga xamante ne moo fay nekk euh, recevoir comme ni ma la ko waxee matériel bi mhm. mais jour élection yi aussi mu mu mu mu mu mu assurer sécurité bi. Mhm. parce que xam nga jouru élection bi par exemple maa ngi koy fàttali warul ay affaire ay article publicitaire nga koy wane yooyu yëpp kenn waru koo def ku ko def yaa ngi jalgati yoon waaw ñoom dañ fay nekk pour assurer euh, ordre public bi xam ne loolu déjà moom élection ou pas ci seen liggéey la bokk ah mais rawatina nag bu fekkee jouru élection la ñu euh, créer condition pour que nit ñi ñëw voté ci jàmm mm-hmm. ah dem ñibbi ci jàmm waaw résultat yi euh, génn ci jàmm Sénégal continuer dès lundi ñu ñuy dem liggéey loolu daal moo doon suñu mébét te liggéey nañ ci bu baax ñu ñaan yàlla yàlla jàllale ko noonu ñu ko bëggee. amin euh, ñu bëggoon a xam ñaata bulletin rek la ñu defarlu wala yéen ngeen defarlu pour euh, atum ren. waa bulletin yi bulletin yi moom ëpp na trois cent millions de bulletins. trois cent millions de bulletins ëpp na ko. Hmm. ëpp na ko aw ma aw ma nombre bi en parce que xam nga dafay varier ci tel euh, bon xëy na bu ñu paree ci lii sax mën na leen wax le nombre exact hmm. mais lii wóor mooy ëpp na trois cent millions de bulletins xoolal na trois cent millions de bulletins nga war ko séddale ah hmm. euh, bureau de vote bu nekk bulletin ya fa war a dugg dugg fa département bu nekk bulletin ya fa war a dem dem fa te candidats yi nekkuñu les mêmes candidats euh, ci département yi wala ci communes yi. dangay fekk ay candidat fii nga dem ci beneen commune nga fekk fa yeneen candidat nga dem ci beneen département nga fekk fa yeneen candidat candidat yi du ñu bokk ma candidat yi mooy liste bi mhm. maanaam dangay ngay gis benn parti lu koy lu koy mandargalee mooy da ngay gis benn parti moom ci commune bi mu mu mu dem fa donc su demee ci commune boobu danga koy defaral ay bulletins ci commune boobu mhm. mais nga dem ci beneen commune wala ci beneen département beneen parti moo fay dem mhm. parce que euh, parti yi wuñu du du du du du obligation pour ñu dem ci commune yëpp commune da tànn commune bu la neex nga nga def ko donc ñun ñun ñoom bu tànnee ba pare noonu la ñuy defaree bulletins yi ku nekk fi nga tànn ñu defal la ay bulletins ci foofu gox boobu loolu moo tax affaire bi xaw a bari ba pare euh, xaw a compliqué mais nag yàlla dimbale nañu defar nañ ko yëpp ba yóbbu nañu yëpp aussi ci ci ci ci lieu de vote kon yéen euh, bu ma la déggee euh, ci wàllum contentieux yenn euh, parti bi nga xam ne concerné na leen bu ñu leen ci woowoon tey du am dara lu ngeen reproché seen bopp. waaw waaw waaw ñu ngi sant yàlla fi mu nekk nii daal d'ailleurs lii sax c'est rare ñu ñu doxalee ko nii am na mu des trois jours ci élection yi. mais lépp li nga xamante ne lii waroon na dem sur place dem na déjà sur place. Mhm. waaw du ñàkk nag am ku ne ñu a ah, yéen de ay euh, soixante cachets ngeen ma waroon jox mais cinquante la laata bu ko defee rapidement ñu jox la dix yi nga complété. Mhm. donc actuellement loolu sax loolu moo tax sax ñu ñu ba pare lii pour dese jot pour dese temps boobu. Mhm. temps bu nga xamante ne ku ñu signalé benn affaire bu manqué rek ñu mën ko rapidement mm, ko corriger. élection dañuy faral di gis ne saa bu amee ñun ñi nga xam ne ay reporter lañ dañuy nekk souvent euh, ci terrain bi léeg-léeg nga gis ay bureau de vote yi nga xam ne waxtu bi ñu waroon a ubbi ubbeekuwul ñu naan la bulletin yi euh, dafa am ay réclamation wala ña nga xam ne ñoo fay superviser ñoo ñëwagul li ni mel tamit euh, ndax matuwaay yi jël nañ ko ci. waaw loo loo loolu tamit xam nga loolu boo ko seetee boo ko gisee ñaare dañuy wax ne bulletin yi dafa manqué fii. Mm-hmm. wala ñu ne la euh, euh, président de bureau de vote bi wala membre du bureau de vote yi ñëwuñu mm. loolu moo koy faral di indi mm-hmm. mais ñun tàggat nañ membre du bureau de vote yi ba pare sànq maa ngi la koy wax ma ne la moom war na ñëw bien avant huit heures mm. vote bi mi ngi commencé ga huit heures waaye moom li ñu leen wax parce que ñoom defal nañ leen formation sur toute l'étendue du territoire tous les membres du bureau de vote expliqué nañ leen ne war nañ fa ñëw six heures et demi sept heures moins mm-hmm. bi boo jotee matériel bi tamit nga dugal ko matériel bi placé ko parce que même matériel bi dafa am nu koy placé ci bureau bi. Mhm. ak wat du muy déroulé loolu lépp jàngal nañ leen ko wax nañ leen ko ba pare insister ci heure bi bulletin yi aussi soo gisee ñu ne la tey soixante douze heures avant le jour du scrutin. maanaam ñetti fan te wote bi laatay wote bi di ñëw. Mhm. yóbbu nañ matériel bi yëpp ñu ngi am yaakaar ci ne xëy na loolu ngay wax noonu mën na am. buñ ci yàlla jàppee bu ñu yàlla dimbalee mu bañ a am mhm. en tout cas lépp lu nga xamante ne lii war nañ koo def def nañ ko war nañ koo def pour que loolu du am ñun def nañ ko ñun def nañ ko ñaata bureau de vote la ñuy xaaranti ak ñaata électeur ñoo fas yéene dem euh, ci urne bi waaw euh, bureau de vote yi moom euh, quinze mille maanaam fukki junni ak juróom ak juróom benn fukk ak juróom benn mhm. bureau la ñu am quinze mille zéro soixante six bureau euh, euh, yi bulletin ni ma ko waxee dama ne ëpp na <clears throat> ñetti téeméeru million bulletin waaw électeurs yi nekk na euh, juróom benn million yu yu yu yu teg ay ay ay ay ay juróomi téeméer six mille plus de six millions de cinq cent parce que fichier bi dañ ci génne euh, takk der yi. Mhm. takk der yi du ñu voté ci élection locale yi suñu mbokk yi nekk à l'extérieur ah ñoom tamit duñu ñu voté. Mhm. donc euh, ñoo ñëpp dañ leen a génne ci fichier bi civil yi rek ñoom ñooy voté ak ñi nekk fii ci biir Sénégal. donc fichier bi boo ko jëlee fichier général bi ëpp na loolu waaye comme dañ ciy génne ñooñu li ci des foofu foofu foofu la toll. plus de six millions de d' électeurs. d' accord sànq nga expliqué ko ci nasaraan anam gi nga xam ne noonu la ñuy euh, voté euh, tey ndax euh, boo ci dellu ba pare ndax sénégalais yi sensibiliser nañ leen ci mbir moomu ñu bañ a am ay bulletins nuls. comme niñ koy nemmeekoo ci yeneen i waaw waaw waaw en tout cas foofu aussi li nga xamante ne lii jàpp nañ ne moo doon suñu waar. bay nañ ko. maanaam dem nañ ci télévision yi dem nañ ci journaux yi dem nañ ci rajo yi dem nañ sax ci rajo communautaire yi bi ñuy demee ci rajo communautaire yi euh, kàllaama yi bi ñuy wax ci gox yooyu lañu ñu utiliser maanaam les langues nationales pour que ni ñi comprendre def nañ ay caravane ay caravane pour expliquer nit ñi jël nañ ay flyers ay kayit yi nga xam ne ñu affaire bi technique de vote ah ma maanaam ni ñuy wotee parce que wax nga dëgg euh, élection yi ni ñuy wotee bokkul ak ni ñuy wotee par exemple buñ doon tànn président de la république bokkul tamit suñuy wote pour tànn ay député bii defa xaw a doy waar parce que mën ngaa dem ci benn bureau euh, électeur bi te ñaari yoon lay wote ah mhm. nga dem ci benn bureau bu nga xamante ne bi électeur bi ñetti yoon ñetti yoon lay wote mhm. voilà loolu moo tax euh, mu am bii moo gën a compliqué yeneen yeneen élection yi mhm. par exemple su ma jëlee kaaw Dakar te ensuite dafa am fu nga xamante ne bi da ngay pour ville li ñuy wax ville ak ak nga wote fi ñuy wax commune. Mhm. dégg nga loolu boo jëlee Dakar Guédiawaye Pikine da ngay euh, électeur bi bu duggee day voté pour ville ba pare pour voté pour commune. Mhm. léegi boo demee euh, euh, ci ci ci yeneen yeneen yeneen dëkk yi nekk ci biir biir réew mi mhm. dañuy dañuy voté pour commune ba pare voté pour département boo ñëwee nag ñaari cas yu nga xamante ne ñoom bokkul ñu ko ak kenn mooy kaawu Rufisque ak kaawu Thiès. ñooñu ñetti yoon la ñuy voté bi bu duggee day voté pour département bi parce que Rufisque dafa am ay communes yu nekk ci biir ba pare mu am yeneen ci biir département bi te bokkuñu ak communes yu nekk ci biir ville bi. Mhm. boo xoolee Dakar commune yi nekk fi yëpp ci biir ville bi lañ nekk. 19 communes la ñoom ñoo fees département bi. Mhm. boo demee Rufisque dafa am ñetti commune mais ba pare loolu mooy ville bi. Mhm. mu am na yeneen communes yi nga xamante ne yi nekkuñu ci biir ville bi. ba pare boo boolee communes yooyu nag ak ak yi nekk ci biir mu nekk département loolu moo tax moo Cees ñoo nuróolee foofu. Mhm. donc foofu loolu moo indi ñoom ñetti yoon la ñuy voté. tey jii élection territoriale yi ñaata la dikkee Sénégal organisation bi. Euh, waaw mais xam nga loolu moom dafa bari ay ay ay ay ay euh, ay ay dépenses. Ah. loolu bari na dépense trop effectivement affaire xaw na diis parce que xam nga li wax naa la ko sànq soo xoolee lu ëpp trois cent millions de bulletins. xoolal loolu lu muy laaj ci ay këyit xoolal loolu lu muy laaj ci encre xoolal loolu li muy laaj ci ñi koy defar kooku benn benn benn boobu rek laa jël xoolal ay euh, nombre d'urnes xam nga nee naa la am nañ quinze mille euh, soixante six bureau de vote mm-hmm. ah mm-hmm. léegi bureau bu nekk am na ñaar euh, urne mm-hmm. yeneen bureau yi am ñetti urne ak tout ce qu'il y comme encre indélébile comme cachet comme euh, documents ah comme formation comme communication ah donc vraiment euh, mën naa wax ne euh, dana day laaj ay moyens mhm. effectivement organisation ay élection bu mu mën a doon day laaj ay moyens rawatina rawatina bu dee ay élection ay élection locale mais xam nga dañuy wax ne démocratie amul prix coût la am démocratie amul prix li ñuy permetre ñu ñu ñu ñu ñu ñu fal ay nit yu nga xamante ne yii ñoom ñooy doxal euh, organes yi nekk ci gox-goxaat yi mm-hmm. li nga xamante ne day gën a euh, euh, ñoŋal suñu démocratie def naa ne amul prix l'essentiel mooy que ne jaar ci transparence ah ki ëpp nit falu ba pare mu jaar ci jàmm ak salaam loolu daal defe naa moo ëpp importance sax ci moyens yi ciy war a def. ordre mission yi tamit bëri na li muy andi coow ndax atum ren jël ngeen ci ay matuwaay. ordre de mission yi mun mënatul am problème parce que ordre de mission yi léegi euh, yéen journalistes yi ak chauffeur yi yóbbu matériel bi ñoom rek ñoom la ñu wutal ordre de mission parce que xam nga nee naa la euh, militaires yi ak paramilitaires yi du ñu voté mhm. donc ñooñu soxlawuñ sax ordre de mission bi nga xam ne moo leen di permettre ñu voté. Mhm. yéen journaliste te yéen journaliste yi ko question bu importante bi ah, euh, laaj nañu dellu si waat ci seen organe da leen di de leen di day ñëw fii ñu jox ko ay ordre de mission xam ne ñun ministère leen l'intérieur moo koy defar bu ko defee seen responsable organe bi signé ko bu ko signé yéen seen bopp ñu jël seen ay mention carte maanaam sa numéro carte directeur sa tour sa matricule de solde dégg nga loolu yëpp ñu remplir benn fiche mooy mooy mooy nekk euh, kii bi euh, ordre de mission bi ba pare euh, ñu ñu ñu yóbbu ko fi ngay dem fi nga wax ne foofu nga bëggee dem pour def reportage boo demee nga seeti préfet foofu mu signé ko nga seeti SEDA SEDA mooy ñi nga xam ne ñooy saytu ndax affaire bi joxal jaaren ci yoon wala jaaru ci yoon kooku tam signé ko dégg nga te loolu yëpp bu il faut yow ci sa bopp nga nekk. un électeur de la commune xam nga temps yu jógee pour une élection nationale mën nga jógee Dakar fekk fii nga waroon a vote nga dem Thiès nga vote foofu mais pour élection locale yi loolu amul pour nga mën a vote fi ngay fi ngay dem reporter il faut du bind la ci liste électorale commune boobu donc loolu moo tax yéen léegi defe naa ne bu ñuy yónni kenn fenn pour mu dem defi fa reportage da ngeen di seet ki nga xamante ne foofu la bindu su ngeen bëggee mu voté. d'accord monsieur Niane ñu lay jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm. donc maa ngi wootee encore laaj citoyen ñëpp nañu xam ne ni lii feet la feet la parce que tànn ci ñun ñi nga xamante ne ñii ñoom ñooy doxal euh, réew mi. donc euh, warul am coow warul am histoire képp ku nga xamante ne ki yaa ëppale nit te yàlla nam ma ko euh, yàlla yàlla yàlla na nga jàll.